Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 49 de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce dimanche 19 avril 2020, le ministère de la Santé de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire provenant de Derklé et Guédiawaye. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 367 cas ont été dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 143 sous traitement. Le ministère de la Santé l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention collective et individuelle. Je vous remercie. maa ngi ñëw di leen jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko tey ci mbas mi ñuy wax Covid 19 ci Sénégal ci bësu dibeer bi di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2020 ministère de la santé et sociale jot na saytu yi ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xamante ne seet nañ ko fukk ak juróom-ñaar dellu nañ ak doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom moom la wax cas contact mooy yi nga xamante ne. suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo koy saytu ci yooyu tamit ñaari kaa ñoom la ñuy wax transmission communataire maanaam mooy ñi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll ci ñi nga xamante ne feebaru nañ te ñu ngi tëdd hôpital juróom-ñeent ci ñoom bañ leen saytoo gis nañ ni amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñi nga xam ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ñi am doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak ñaar fukk wër nañu ñett génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mu mu jóge woon loolu moo tax tey ñu desee téeméer ak ñeent fukk ak ñett yi nga xamante ne. ñu ngi leen di faj ci bërëbu fajukaay yi ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax population yi askan wi ñu gën a topp dige yi tax feebar bi ñuy wax mbas mi covid 19 du law ci biir Sénégal ci yooyu ñu ngi leen di dolli di tere ñuy nuyoo ak loxo di raxas seen loxo yi ak saabu ak ndox di col mask ci diggante ñaari nit ñuy xàll lu toll ak benn mètre waaye tamit suñu demee bay bugg a tisooli wala ñuy sakkat ñu jël mouchoir te suñu paree ñu sànni ko ci mbalit mi bu ñu amul mouchoir ñu sakkat ci seen diggante conc yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam